man maa ngi remercier Maître El Hadj Diouf euh, <laughs> merci beaucoup Maître El Hadj kenn du yow Sénégal nan la seeti ba pare est-ce que xam ngeen ne Maître El Hadj Diouf ku bëree yërmande ni moom mosuma ko gis barki Serigne Touba ñu bëri bëgg nañ koo jël mais dan naan yii mënuñu koo fay ndeysaan c'est pas le cas tel n'est pas ah ndeysaan nit boo ko xamul rek xamoo ko kooku mooy l'avocat du peuple barki sëriñ Touba di remercier juge yi toogoon démb ñoom ñëpp ñu ngi leen di ñaanal jàmm yàlla saxal leen ci seeni place dara bañ leen faqatal ci barki Seydina Mohamed xam nga àtte bu jaar yoon nit dinañ la faral sax nga wéet ne ah ñii toogalun fi askan wi de waaye ni ñuy attee ci ngay xam ni dara ñoru leen lu dul askan wi ndax nee naa la foofu ñu toog ku fay toog dangay waat moo tax macha allah démb lépp jaar na ci yoon ah maa ngi leen di remercier yéen juge yi di ñaanal sama adversaire bi ma doon combat pasis na ko bëre ci jàmm yàlla may ko ci ndam ci barki Seydina Mouhamed moom ak képp koo xamante ne yaa ngi ko ci doon jàppale man nii la mel damaa baax xam nga mbëri dañ lay daan ba pare mayaat la loxo ngay jug ñu bàyyiwaat la <laughs> danoo saay saay de fii dañ lay daan ba noppi di la may loxo nga dem bay espérer ñu ne la rës dañ lay sànni jallax <laughs> waaye man euh, billaay dama baax maa ngi koy ñaanal jàmm moom paas yi suñ pàpp boobu di ko ñaanal suñ borom bi gën koo baax na ci lii ndax dina tax képp ku ma demati ne la jaay ma terrain di nga xam li ngay wax ak man ndax man ba may wax ak moom dama ne ko papa bëgg naa ko mu ne moom jëndal ma ne ko mais man damay expliquer damay wax <laughs> mu ne ma gasal ma ne ko mais papa man damay xëw wax laa wax wax mu ne ma waaye yow côté waxal <laughs> ñu ne déetamaa woo ne ko papa damay tabax nii mu ne ma mene gasal ma gas coow li tàkk <laughs> ñu fay ko démb